Assalamualaikum Gambia Assalamualaikum àdduna wongal kep nuyu nañ len di len dalal su suñ benen programme City Affairs uh, tay nak ci kër gi ma anda fi ko xamantene ñu gën ko xamé ci Modou diaw ma anda see mom tay uh, fas ene waxtaan rek uh, bir Banjul Sahel Network TV la fi la lepp di assalamu alaikum diaw nuyu na la. alaikum assalam wa rahmatullah. Euh, Diawo ñëpp gën laa xamee euh, si si lopitaan yi Banjul man dinaa ne euh, Banjul daal ñëpp foofu lañ xamee Diawo mm. because soo demee si lopitaan bi moom soo ne Diawo réerut fenn mm. tey ñu gis ne Diawo noos nga nga nekk juddu Banjul nekk fii biir Banjul tey Diawo su ma la doon laaj Banjul tey yow lan nga ma mën a wax baañul si tënk Banjul kañ la Banjul commencé ñaata at la Banjul am bugga naa xam loolu ak ñan ñoo nekk def first tribe ñu nga xamante ne ñoo njëkk a setul biir Banjul Eh, jërëjëf aadama loolu soo ñu ko laajee dinañ si kontaan trop. ndi ñun fii lañ juddoo fii lañ yaroo fii lañ màggee suñu yaay suñu maam yëpp fii lañ juddoo si Banjul fii. donte suñ delloo ay ñeenti ñeenti téeméeri si gannaaw fekk suñ maam yi juddoo ñu ñaari téeméeri at si gannaaw. suñu maam yi nga xam ne ñooñu meñña ñoom ñëpp fii lañ juddoo te ñu ngi tëdd fii si waraaji Banjul bi. su ma nee waraaji Banjul nag mooy ne bàmmeel bi nekk nii si yoon bi si. Serekunda highway bi ah, fa lañ tëral Banjul ah, ñu ngi ko sos si at bu ñëw wax eighteen sixteen si la ko tubaab yi Angleterre yi jinda pour sanca fi daf capital ndig lu jiitu loolu ñu ne Makati Island lañ bëggoon a def capital yi ba capital Gambia waaye bi ñu gis ne Banjul di di island di size of the island moo gën a yaatu Makati Island gars yi pour ñëw fii nii eh, Banjul loolu mu ngi tolloo si eighteen sixteen eh, si door di ko dama këyit waaye nit yi nag pour ñëw nag dëkk fi boobu eighteen eh, eighteen twenty la ndég Banjul àll woon ay garab ñoo fi nekkoon ay ay rapa nga fi woon yu mel ni ay jësit ay jaan ay bar da gis ne nit mënut a dëkk ak loolu soo si biir loolu gars yi dañ doon taaxiru pour wàññi garab yi fi nekkoon eh, ba nit yi am yoon mun a samp koñ yeeg yooyu noonu leen pour nit di ñëw dëkk fi loolu mu ngi toll si 1820 waaw waa eh, buuri kombo bi nag moo ko jaayoon tubaab yi anglais yi moo tax nga gis ne tubaab yi anglais yi ñoom bi ñu ko jëndee eh, mbeddi Banjul yëpp dañ ko tuddee seen mbokk yi te mbeddi Banjul boobu mun di gis fii rek turi tubaab yi Angleterre la amee ba mu des boori Tabakurut waaw ndég eh, dogi dog dog bi mu ngi amoon box bar route fale amoon fekk tabakuru tamit mu ngi bokkoon si tan bi waaw in history so da nga gis ne lu ko dooree yëpp si biir nii yëpp mhm. tubaab tubaab bi anglais yi ëpp doole bi yëpp bi anglais lañ lañ ko tuddee mhm. rawatina ko ñu nekk xaaf day mhm. waaw ah, mu doon lu am solo ah, ñu bëggoon a xam rek ah, ñan ñoo nekk de force try pour setul biir Banjul fii waaw ñi ñi ko setul fii gis naa sosé dëkkoon baara naa ñëw di béy fii banti taara ñu ko wax banjuloo banjuloo loolu laa ki soose la tubaab bi bu ñu déggee loolu eh, mënuñoo wax prononce banjuloo ñu ne banjul waaye ñoom dañ indi woon seen turi boppa tudde ko batoos benn dem ba nga xam ne moomaat nañ suñ boppa ñu wecci waat tur bi defar ko banjuloo waaye olof yi jóge ko woon ndar ñoo njëkka a ñëw setul biir banjul fii ñoom ñoom ngi dëkke woon xafdaay moo tax xafdaay moo bokk si foo sanca biir banjul fii xaf daayul fa la nit di dëkkoon eh, mu ngi amoon Wellington Street waaye li ko dooree line bi jël nii dem si boori géej gi foofu amutoon amutoon ay kër yooyu yëpp si tefes gi tefes gi tefes gi mooy comme beach side bi yëpp si beach side bi la bokkoon waaye li ko dooree boor bi da nga jël ay Bogle Street Lehman Street jël ay ay Ziprak jël Wilberforce Wilberforce xaw naa yéen doo leen ko mën a am. ndeg koñ boobu noonu eh, gannaaw gi port bi daf ko teel a jël waa ak ay Zipra ay Liman Street down Liman boo dikkee ñoom El Hadj Baba Samba yooyu noonu leen yooyu yëpp port bi dafa ko jël léegi eh, boo foofu foofu xeegaan la ak xeegaan so da gis ne bii nit di dëkkee Hafdaay nekk Hafdaay nekk Hafdaay tubaab bi tamit dañ fa amoon bés léegi benn feebar dugal leen comme tey eh, coronavirus bi ni mu amee nii muy mbes so feebar boobu noonu la duggee woon Banjul fii réew tubaab bi anglais yu bëree bëree bare léegi bi général bi damay joxe report bi moo ngay woon général mu ne ko half of the soldiers they die so suñ paa yi fi dëkkoon nag time boobu nag da jàngaguñ angale ñu jël tur boobu ne half die waaye half die la mu ne gannaawal gi dañ dee si la gars yi nag toxu ñoom tubaab yi angale yooyu soldat yi toxu ñëw dëggi Banjul muy fu ñu wax soldier town waaye paa yi ba léegi comme mu demuñ school te seen la seen làmmiñ seetu si angale ñu ne saja town li moo indi sa jaan mooy yéen boor ngeen dëkkee li ko dooree digga Figueral ak yooyu noonu leen ko yooyu ko si digga Allen Street ak yooyu noonu leen ñu ne Soldier Town waaw Soldier Town la mhm. waaw ah, mu door lu am solo ñoo ko déggandoor ah, comme que suma gars yi seetaan ñoo xamante ne ah, ñu ngi dëkk Banjul fii nekk juddu Banjul waaye ba tey xamuñ dara si Banjul suma maas yi tey man xaw ma lu bari biir Banjul comme message yi moo joxe ni euh, baax na trop pour ñu déglu ko ñu gën see bàyyi xel pour ëllëg moo tax Jaawo euh, tey ñu gis ne euh, gis nga démb gis tey mm-hmm. nga nekk juddu Banjul nekk si biir réew mi tey bugg naa xam Jaawo yow tey ban développement nga gis boo xamante ne Banjul am na ko tey comme gis nañ gis nga démb gis tey yow tey lan nga mun a wax si présent Banjul condition bu ñu nekk nii ndax Banjul mu ngi gën a improve wala nekko di improve waaw dinaa ne naam ah kañ ndi eh, développement bokk naa si ñu liggéey tali yi bokk naa eh, ñu bil ay marché eh, dëkkuwaay yu baax and then ñi tamit ñu jàngal leen métier oo xam-xam ba nga xam ne dinañ mën a yóbbu suuf soosu kanam ndi tey soo xoolee tey mbeddi Banjul yi ñaar fukki at si gannaaw walla lu si tegu tey ni mel ni mel ko woon léegi-léeg nga téewoon sekkul di dawal si mbeddi Banjul balaa ngaa àgga sax ring-ring bi yaa sa tànk saykul li mhm. mbaa nga dugg a moto nga gis moto yi léegi-léeg mu ne du ma aw si koñ bi ndi koñ bi baaxu tali yi baaxuñ yaa ngi dégg rawatina suñ jigéen ñi di jóge marché léegi-léeg nag daan bi rek taxi ne ko maa ngi dem plus street day fay daf laa ne obviously du ma fa mën a dem because foofu koñ bi bu baaxut mhm. fi mu laa mën a wàccee rek mooy ne nga dox ko waaye tey soo seetloo ah, alhamdulilah not tali yëpp waaye tey yi gën a mag foofu nit war a jaar ak moto war a jaar yëpp ah tali yooyu mu ngi baax. wax dëgg yàlla yàlla te tamit soo seetloo suñ area council bi fii muy BCC. Banjul City Council soo seetloo ñun bi ñoo juddu yëpp benn structure bi lañ fa fekkoon. waaye with this present mayor ah sant yàlla. at least change na structure bi at least wane na jëma pour wane ne ah, the capital city of the Gambia. seen kër alkaali bi liggéey nañ ko. te mu mel nii. wax dëgg neex yàlla loolu soo ko gisee da nga xam ne at least Banjul am na tuuti développement buy buy ñëw. Mm-hmm. Uh, mu doon lu am solo comme tey uh, Jawo yow lan nga am pour wax ndaw yi Banjul yi uh, fii nii gis nañ ne ndaw yi Banjul yi lu si ëppa ñeneen ni soo demee si mbéera bi nga leen a fekk ñu toog ñii di campé ñii ne dem naatee wala yu mel noonu bugg a tukki soo tey yow lan nga am pour wax ndaw yooyu noonu is it gars dañ lazy wala naka la fa demee. ah in a sense ne dañ lazy waaye tamit li ma wax rek moo ne foog ñu jàppale leen mm-hmm. ah, ndëg ndaw eh, ndawi réew ëllëg ñoo war a amee réew bi mm-hmm. bu leen mag ñi seetaan mm-hmm. li ñu war a def moo ne suñ fu ñu leen fekk ñu toog eh, garde leen ataaya du ñàkk nag ndëg loolu eh, cosaan la si ñun cosaani Banjul la because suñu kilifa yi dañ daan toog comme suñ damaan liggéey ba wàcca ñoo toog benn bunti kër kenn koo xam ne xëy na moom la ñu gën a miin mu lu ñu ko def vu masta ñoo toog bunti kër yu mu aada waxtaan ba seen waxtu jot ñu tasaaroo delluwaat seen njaboot gi loolu daf daan indi code de régulation boo xam ne dafa tax ngeen miinante buggante moo tax soo seetloo Banjul bu njëkk ba ni ma ko daan doxale mooy ne tey mm-hmm. yow aadama mi mun ngaa dox jóge ko seen koñ dem ba boori xaf daay mm-hmm. di fa ragal a def dara ndi nga saxarati yaayam wala saxarati papa mu ngi fa dëkka wóor na ne soo dafay dara kooku dina la dóor mbaa soo soo fa jógee ko dina la ñu boole si moo tax eh, paa yi daan toog wala mairie nga gis ñu daan am seen vuu di toog di waxtaan da gis ne tey sa doom doomi keneen la doomi keneen sa doom la foo ko gis si lu bon da nga da daaxa lii moo indi vuu yi waaye tey comme xale yi tamit li nga wax rek ñu bari ñu ngi toog di nga romb yenn ko ñoo xam ne ñu ngi romb si ñu ngi ataaya ñu ngi amuñ liggéey man dama ne soo gisee tamit toog mbir bu bari bi yëpp ñàkk am liggéey bi la suñ leen utaloon ay job ndig euh, maa ngi leen mën a remercier man jaar na fa mu NYSS during the time of Yaya Jammeh créé na fi youth service scheme bi euh, jaar nañ fa yaa bàyyi ne nañ leen jàngal métier ndig réew su jàngutee na jàngal métier ñaar rek moo yóbbu nga jànga mbaa nga jànga métier boo xam ne dina la mën a sustain te suñ déggalee te waat NYSS wayaa bàyyi nañ fa jàngal xale yi carpenter ñu fa jàngal xale yi maçon dañ leen fa jàngal peinture ñii dañ leen jàngal ñaw ñii dinañ leen jàngal euh, mbéy yii yëpp ñun bi ñu nekkee NYSS jàngal nañ leen jàngal nañu ko ñii dinañ leen yóbbu ñu def computer science yooyu yëpp mu ngi fa soo su fa naa suñu déclaré loolu noonu leen ngeen koo taxawal invite ndaw yi ñu ñëw ñu ñaax leen si at least on unemployment bi dina wàññeeku yaa ngi understand te soo gisee tey nga mun a toog ne yaa ngi toog si vuu dafa fekk amuloo liggéey waaye tey xale bi su amee liggéey benn mu nga dem si port bi mu nga dem si eh, place yi métier kaay bi du amati time pour toog comme na mu daan toogee ewu eh, suba ba ngoon di toog si fuuf bi Euh, ñun dañ daan gis ne sax ba tey euh, euh, gof comme ni ko vice président bi waxee. Hmm. moom daf ne ndawi Banjul yi ndawi Gambie nii dañ lazy hmm. waaye foogoon naa ne su ko généralisation sax moo doon gën a civilise waaye gis nañ ne si kaw loolu man yow yaakaar nga ne government bi ñoo waral loolu wala ndaw yi seen boppa ñoom ñoo tayal seen tayal yi boppa parce man gis naa ni am na place yoo xam ne yu si mel ni Krabeylan hmm. léegi kenn nekkatu fa man su ma gis-gis mooy government bi waroon nañ faa dara loo xam ne dañoo pare pour dimbale ndaw yi jàngal leen fa comme yi nga expliqué nii tey yow si si tënkalu ndaw rek yow tey lan moo si sa xalaat ndaw yi la wala government bi la. waaw loolu laa wax ne moom su waxee ne ndawi Banjul ndax ndawi Gambia dañ léesi mhm. ah man du ma nangu loolu loolu jumti la ni xale li Banjul wax dëgg ne yàlla ñu takku liggéey lañ mhm. ñu takku liggéey lañ soo leen joxee liggéey nga gis bien a vous senel ma ne kaa ñam la jox contrat dañ dee sawar mhm. da nga gis ñu jóg booy nañ dem dóor daanu wana sanawaan yi am si dara ñëwaat loolu suy continuer saa yu nekk xale yi duñ toogati nañ neen créer ak jobs. yaa ngay déggal ma ne nguur gi dafa am eh, li mu war a def pour xale yi tamit. bu mu toog rek seetaan xale yi ëllëg ñun daf ñoon xarit ji. ndax tey su fi mag yi jógee ko ñu naan toog xale yaa war a toog tey xale yu réew yi soo leen jàngalu doon nu ñu war a téye seen réew ëllëg ñeneen naa ñëw dinañ ko téyel tey soo seetloo suñu dëkkandoor muy Sénégal doomu Sénégal boo gis noonu ne dafa jànga school rek. dëgg ni nga day yóbbu school waaye Sénégal boo gis ñaareel mun na métier. boo gis tey soo seetloo tey place yi métier kaay yi nekk si biir biir dëkk bi yëpp noonu Banjul rek si biir dëkk bi fita yeeg kapinta yeeg maçon yeeg yëpp ñi ëppa doole bi yëpp Sénégal mm-hmm. ñoom lan la ñoom seen seen seen doomi réew mm-hmm. dañ leen day meeg soo ne ñoom jàngal nañ leen métier ba foo mun di dem rek loolu moo laa mën a yóbbu ndi nguur gi tamit du mën a ñëpp mm-hmm. ak aaduna bi lu moo rëy rëy yëpp dëkk yi gën a am doole yëpp ñu am ëppa alal yëpp si àdduna si ñoom mënuñoo employé seen yut si alal yëpp nañ leen ñuy dem di séelé xale yi bu xale yi Banjul ñoo soo soo demee Simaan Union ñi fa register they are too much waaye gaal amut Gambia amul gaal buy dem pour séelé ji foreign bu sib rek ñoo dee ñëw troll si ñoo dee ñëw di pick suñu da gis dañoo ñëw pick ten ou pick five yóbbu te fekk waaye soxna ñu ngi register tey Gambia su amoon at least ten of those trollers fishing trollers yooyu noonu leen at least eight trollers dina mën a jël moo daan forti xale li Banjul wala xale li Gambie kon in general loolu yëpp nañ créé job comme li ma wax tamit NYSS bi ñu déggal ko utal leen ay liggéey ndik ñun si teemi paa yi Gambie dañ amoon public works département muy PWD mu ngi woon Hafdaay mooy léegi fi port bi jël su utali waa fi ñaago boori Muslim High School foofu noonu leen jamono boobu leen ñun bi ñu ngi nekk xale yu ndaw dañ daan dem foofu di fori mata yëpp fa lañ ku eewu rek soo amutoon liggéey si si nguur gi xam nga yaa ngi dem liggéey foofu kapinda yaa ngi fa fite yaa ngi fa ñi peinture ñu di la a déclarer di déclarer NYSS lii dafaa ko de waaye o because ku nekk yaa ngi ne ëllëg maa ngi war a jóg pour liggéey dañoo dem tëddee waaye bu ñu leen bindaw yi dañ lii si déedéet loolu way xaste la loolu urul sa pour ñu ko waaw euh, tey jaawa gis nañ ne waxtu xoj nañu ba pare euh, si hmm. si tënkalu ndaw rek tey yow lan moo nekk sa advice si si ndaw yi nekk si biir réew mi niñ jóg léegi-léeg bul xaar nguur gi ndig tey nguur gi mënut a jóg ku nekk di la jox dépasse Gambie amaguñ doole loolu noonu leen di la jox li nga war a dundee amaguñ ko comme yeneen dëkk yi yeneen dëkk yi nga xam ne social bi dañ naa fay every month nga liggéey ñàkk a ko liggéey Gambie amuñ ko waaye soo cité une limo ne man nguur gi dafa la ñu dafa la ñu def loolu dafa continuer yaa ngi war a mag war a am jëkkër yaa ngi war a mag war a am ay doom yaa ngi war a ut kër war a ut ay moto wala dunda war a dundal sa njaboot nga war a toog léegi xam nga li ñu dee wanee pondi tànka gën pondi taat time nga toog yëpp defloo dara jugal bul xarati nguur gi bul xarati yaay wala papa because yaay bee papa bi tamit dundal la dafa am fu mu em di tey nga juddu sa waajur di la toppandoo school ndewu añ reer school ndewu añ reer ba ay ñaar fukki at nga jànga school ba jeexal tag mu soo fee sa boobu school fees sa waajur mën ko feel nga nga wàcca loolu wala continuer waat man dama ne yow mi yow mi ndaw mu ne jóge nga utali sa boppam métier boo mën a defal sa boppam pour nga dimbal sa boppam dimbal sa ay waajur nga xam ne xasta du am toog mbir bu ñoo toog nguur gi sax di nga dem ba nga xam ne moom su la joxutee sax yow di nga mën a joxe defal sa bopp waaw. Euh, mu doon lu am am solo fii la ñu waxtu mayoon tey euh, lu neex du doy euh, jaaw moom dina dellusiwaat si kër bi ñu gën a yaatal waxtaan bi di leen wax ne bu leen fàttee subscribe Sahel Network TV la. waaw mu ne laa bëgg a wax rek moo ne ndaw yi nañu xam ne dëkk bi Banjul ñoo ko moom waaye dañ ko séddoo ak the whole Gambia. because it's the capital. te soo ne Bakaw da nga ne waa Bakaw ñoo ko moom ñun waa Banjul bokkuñ te soo nee Brikama da ngaa ne Brikama ñoo si ñoo ko moom ñun bokkuñ si waaye Banjul ñun dañ ko moom ba pare boole ko di whole Gambia. because it's the capital. te su Serekunda nekkoon capital ñun dañoo dañoo nañu ñun ñoo moom Banjul Banjul kenn tamit da gis ne ñun tamit kon dañoo ne Serekunda waa Serekunda ak di whole Gambia ñoo ko bokk kon nañ takku liggéey na gars yi jóg ñu liggéey. yeneen liggéey yaa ngi fi yeneen métier yeneen métier yaa ngi nañ bañ ku ñu xas yaa ngay dégg soo déggee ñu ne ndoyu Banjul kii nit war a jóg toog dañ dañ lisi dañ lisi li olof de wax ne bul bañ ku la yaxal si gaali xaj waaye bul ne muy fekk la si waaw soo déggee mu ne kii war a taxaw di ne ñun dañ lési na ko wax waaye ñun buñ boobu mu gis ko si ñun euh, jërëjëf comme ni ngeen ko déggee rek ndaw yi Gambia ndaw yi Banjul kenn léegi wut nañ jóg rek takka fit bi la rek liggéey ñu ñeme ñafee parce xam naa ne Gambian bi ñeme na liggéey ñeme liggéey boo xam ne bunta lañ soxla ak ku leen yaatal ñu em fii ba beneen yoon jërë ngeen jëf.